transport bëri na ay jafe-jafe. nous éprouvons beaucoup de problèmes sur nos routes. ñu ci jàmm boobu. les routes font défaut parfois ça reste à ba ci yoon bi kër ay bi dafa mit nous sommes très fatigués surtout à l'entrée de la Gambie. ci boppam. 3000 la ñuy fay pour yéeg ci pont bi. aller 3000 retour 3000. Au pont de Farafenni, nous payons 3000 francs aller et retour. Le souci majeur, c'est l'interdiction aux véhicules de transport de circuler à partir de 0 heure jusqu'à 5 heures du matin. Cette interdiction crée parfois même plus de problèmes parce que les chauffeurs ne dorment pas bien et en plus tous les véhicules prennent départ ensemble à la même heure vous imaginez. ñu ne defal changement boo xamante ne bu ñu sañoon boog état bi dinañ jàppale. Nous voulons vraiment que l'État, ce nouveau gouvernement, nous vienne à l'aide. Nous en avons besoin, très sincèrement. mu jàppale wu ak lu transport nañ trop.